wajalilaayi maskani tuubaabaat misras mi ca kanam di kuréel gi nga xam ne dafa juddu ci bërëb bu sell bi di Touba ngir taxawu dëkk bi ci mbooleem jafe-jafe yi nga xam ne da koy am rawatina ci wàllum infrastructure ba juddook léegi nga xam ne ñetti at yu teg ay weer la Touba ca kanam liggéey nañ liggéey bu am solo lool ci dëkk bi nga xam ne moo di Touba ci fànn yu bëri muy ci wàllum wér-gi-yaram environnement éclairage public assainissement ba ci wàllum social lenn lu ci ne lañ ci def ci koppar takku na lool te loolee bàyyeekoo ci taalibey murit yi nga xam ne weeru jot daañu joxe ñaar téeméeri dërëm tàbbal ko ci liggéey bu am solo bi nga xam ne Touba ca kanam moom lay amal fii ci Touba Mbacke mbooleem liggéey boobu xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacke Bassirou bég ci lool sant leen gërëm leen ci seenub taxawaay yee yeesalaat kóolute gi nga xam ne am na ko ci ñoom loolee waral sëriñ bi joxaat leen ndigal ngir ñu taxawu dëkk bi ci mboole mbedd yi nga xam ne jamonoy nawet day taa ak yenn jafe-jafe yu bëri am ci dëkk bi ci wàllum assainissement loolee lépp Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké Bachir jox leen ci ndigal ba noppi ñaanal leen ci ngir ñu taxaw ci. ginnaaw loole la leen yebal ci sëriñ Basiiru Mbàkke Abdul Xaadir moom it mu rafetlu liggéey bi yëkkati ay kàddu ci turu xalifa général de Mourides woo taalibe yi ngir ñu jàpp ci liggéey bi ci noone la Touba ca kanam woowee mbooleem jullit yeeg taalibe yi ci jaayante gi nga xam ne moo jëm ci wàllum assainissement dëkk bi kenn ku ci nekk tàmbali cee tàbbal sak ñaq ba Touba ca kanam am ci lu kawe njoxtam ngir ñu amal liggéey bi nag ci dëkk bi ñoom Touba ca kanam dem nañu waxtaan ci ak commune bu Touba waxtaan ci ak mboolem technicien yi Abdou Lahad bu Touba jël ci engagement ni dina leen accompagner ci liggéey bi jëf ci en tant que maire bu Touba waaye jëf ci en tant que Abdou Lahad taalibe Serigne Touba ginnaaw bu tubaa ca kanam dajale mbooleem contribution jullit yi ci la amal journée de lancement liggéey bu am solo bi nga xam ne moom la bëgg a taxawal ci dëkk bi mu jëm ci wàllum assainissement bi li lee mu amal ko ci teewaayu kilifa yu takk lool ci la ñu tàmbali liggéey bi ndax fekk na mbooleem jumtukaay yi nga xam ne moom la ñuy yittewoo mu ñëw ñu xëy tàmbali ci yenn quartier yi nga xam ne moom moo di Kër Ñang yoonu daaru Kër Sëñ Ñaan ak Sexaw ga di yenn ci ñaar fukki siit yi nga xam ne moom lañ tànn ci dëkk bi ngir tàmbalee fa liggéey bi ci phase bu njëkk bi ndax liggéey bi du yem ci ñaar fukki siit yooyu rek bëgg nañ ko wéyal ba jafe-jafe ji nga xam ne moo am ci wàllum mbënn meeg assainissement bi fii ci dëkk bi mu nekk lool Touba ci kanam dana ko saafara quartier bi nga xam ne moo di sexaw ga niñ ko fekkee woon jéggi na dayoo lool ndax la fa taawoon ci ndox bëri woon na bëriwaay boo xam ne daanaka dégg lañ ko doon méngaleel ba ñu xëyee lañ fa manqué rek ci ay camion ëpp na téeméer noonee lañ ko wéyalee ci quartier bi ba keroog ñu koy liggéey ba liggéey bi mat ci quartier Kër Ñang foofee it pompe nañ ndox mi fa nekkoon dindi suuf su bon si sëkk ko ba maasee doog a teg latérite bi ngir mu nekk yoon woo xam ne dana neex a jaar te dootu am benn gàllankoor ci dem beeg dikk bi noonee it lañ ko amalee ci yeneen quartier yi muy yoon daaru ba ci Kër Ñang fenn fu ci nekk yóbbu nañ fa jumtukaay yi nga xam ne ñoo fa war a liggéey ànd koog équipe technique bi nga xam ne ñooy saytu liggéey bi lépp rek ñu teg ko ci xam jumtukaay yi nga xam ne moom lañ yittewoo ci liggéey bi am na ci lool ay taalibe ñoo ko joxe ngir ñu ànd ak Touba ca kanam liggéey bi ba keroog muy mat waaye am na ci lool dañ koo jënd mu nekk jumtukaay yoo xam ne mënuñ koo ñàkk bokk na ci pel mécanique bi nga xam ne Touba ca kanam moo yëkkati xaalis jënd ko ginnaaw bi Serigne Boub yëkkati beneen pel mécanique boo xam ne mi ngi jar 50 millions de francs CFA daal di leen ko jox jàppale leen ko ci liggéey bu ni mel. liggéey bi nag bu agsee fii lépp mbokki jullit yeeg mbokki taalibe yi ñoo ci jàpp ci jaayante yi ak ñaar dërëm yi nga xam ne weeru jot ñu ngi koy verse ci Touba ca kanam loole moom lañuy jël di ko defaat ci dëkk bu sell bi di Touba ngir fexe ba mbooleem jafe-jafe yi nga xam ni moo fi am ci wàllum infrastructure ak ci fànn goo jël Touba ca kanam fas yéene cee taxaw ba saafara ko taalibe bu ne la nga bëgg mooy la Serigne Touba bëgg ci dëkkam bi mu am loole nag mën naa am su ñëpp jàppee ci liggéeyub Touba ca kanam bi jaarale ko ci mbooleem compte yi nga xam ne moom la Touba ca kanam am liggéey bi nañu ànd taawu ko bu mu laal suuf benn yoon ni ko Serigne Mountakha Mbacké Bassirou waxee. yàlla kattanal leen liggéey bi moom laal suuf nañ ko yëkkati bu mu laal suuf ilaawu kalimatillahi al ulya loolu dong muy liggéey bi qaal baka la sadatin amwati tabkil radiyali imka samawati wajalilahi maskani tu babat misrak mi abi jaay xayri manabat